بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكثروا من الصلاة إن خفتم أن تكثروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ۖ فليثنوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هذركم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 إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون مهيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الآيات الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الحمد لله رب العالمين نوغي بايكو وون في برم تعالى وتبارك دينو خماليني ñi néew doole génn lu leen tajal du ñu amee jafe-jafe waaye ñi nga xam ne nag dañoo des ci yéefar yi te mënoon a génn ba deewee foofa loola mooy dee ci kéefar léegi nag borom bi di misaal ne képp koo xam ni am nga jafe-jafe ci sa kër walla seen dëkk nga génn ngir dem uti yàlla ne danga fekk suuf si yaatu lool mu ne wa may yuhaajir ne képp koo xam ni gàddaay na fii sabilillah ci yoonu yàlla mooy gàddaay uti xam-xam jàngi walla gàddaay dem rawale sa diine walla gàddaay dem dimbale aw nit ne kookee yajid dana fekk fil ardi ci suuf si muraaxaman aw yaatu yaatu lool yaatu ba muy dem ba mu àggee it dana ca ame yaatu boo xam ne kathiiran bu baree bari wa saatan ak ak yaatuwaay maanaam ki génn dana am yaatu ca génn ga bu demee it dana fekk yàlla di ko yaatu waaye nag mu ne wa may yaxruj képp koo xam ni génn na min baytihi ci këram te la ko génne muhaajiran mbir moom dafay gàddaay ilallaahi jëm ci yàlla kii day génn waaye génnam gàddaay la jëm ci borom bi ne wa rasuulihi ak yonentam ba muy génn nag di gàddaay summa gannaaw go yudrik yudrik jot ko almawtu de maanaam daal ma ngay dem ci yoon bi di gàddaay waaye yàlla indi de moo xam dañu ko rey walla dañu ko bett walla dañu ko dóor walla lu ko fa dal daal ba muy dem génn na seen dëkk ngir gàddaay nee mu dee ci yoon yi mu ne summa yudrikhu daal koy dab almawtu dee nee kookee faqad waqaa ca dëgg-dëgg tàbbi na ajruhu fayam ala ca yàlla képp koo xam ni génn na dee ci yoon wi te ba muy dem sax àggut nee na kooku yéeneem àgg na ndax innamal amalu binniyaat yéeneem mooy doon def lu baax doon rawale diineem doon dugg ci islaam walla mu doon sax def loo xamante ne day tax mu am yaatu yaatu pour mën a jaamu yàlla kooke bu dee ci yoon bi yàlla nee na da koy fay yoonu ku gàddaay te mooy mu dem àjjana ne wa kaana allahu mësta deñ moom yàlla gafuuran di jéggalaakoon waaye raxiiman di yërëmaakoon yàlla subhaanahu wa taala jaam bi daa génn di jàngi dee ci yoon wi day dem àjjana ak njàng boo mënti jàng buy jëriñ diine la mbaa muy jëriñ dund jamono bi ngay génn di jàngi yonent bi nee na jën yi ñu ngi lay ñaanal picc yi ñu ngi lay ñaanal xorondom yi ñu ngi lay ñaanal léegi nag su fekkee ni loolee am na nit ki di dem farde loolu lépp day nekk buntu ajjanam moo tax yàlla taala wa tabaarak dafa encouragé xam-xam ngir ñu jàng ko moo tax mu ne wa kaana allahu mustadañ moom yàlla gafuuran di jéggalaakoon waaye raximan di aji yërëm ne léegi nag su fekkee da ngeen di jihaad walla ngeen di tukki tukki mu dagan may nañ leen permission ngeen wàññi julli lan moo tax julli lañ cay wàññi mooy ñeenti ñeenti soo demee tukki moo xam ngénte nga dem walla céet walla doxi mbokk walla yoon woo xam ne yoonu jaamu yàlla la yàlla nee na sama jaam bi may naa ko permission tisbaar ñeent la doon doon waaye ñaar laa ko ko defal léegi kon boo jóge woon jëm Kaolack walla Caajaay walla Mbuur soo àggee bu tisbaar jotee ñeenti rakka yi ñaar nga koy julli tàkkusaan noonu gee noonu yooyu rek lañuy wàññi léegi nag bu ko déggee ni ko sama mbokk muudu muudu ba déggee woon ba laaj ma question bi mu ne oustaz ñun dañoo werante ndax gaa yi dañ doon julli bi ñu jullee ñu ne ku tukki wàññil nañ la julli léegi nag mu ñëw gis koo xam ni day wàññi julli ne ñuy julli suba waa ji julli benn sëlmal mu laaj ko waa ji ne ko dama tukki ñu werante ci nag waa jaa ngi Brésil ba léegi xam naa bu déggee ojo yi dana ree ba sonn bi ñu werantee ba pare waa ji dëgër fit ne oustaz man maa déglu borom xam-xam sàngam mu ne boo tukkee da ngay wàññi julli est-ce que du noonu mu ne ko waaw mu ne waaye du yéen a ko dégg oustaz nee na waaw ma ne ko déet mais da ngay teey da laaj mën a noo gars yi laay weranteel parce que dama doon julli suba ma def benn rakka sëlmal ñuy wax man leen damaa wàññi ma ne ko booba nga def musiba wàññi bi suba bokku ci mu ne ah, ma ne ko xam nga lu te lu ma lay jox rek exemple ci xikma mu ne ah, ma ne ko léegi da ngay wàññi timis noo koy wàññee mu ne benn ba ci yàgg ma ñaar ma ne ko problème a ngoog xanaa kon benn genn wàll ngay def benn genn wàll nu ñu koy jullee mu ne ah, ma ne ko kon timis kenn du ko wàññi gee kenn du ko wàññi julli ñeenti ñeenti yi lañuy ñuy wàññi kazalika ñiy xare it xam nga xare dafa yore atteb tukki atteb tukki la xare yore ndax bakkan da ciy aju ñoom it danañu wàññi julli waaye nag am na tukki moo xam ni moom kenn du ci wàññi a yow ngay tukki dem France ne da ngay dem Bercy rek déglu ji ab concert da ngay wàññi julli ha loolu nag wax dëgg yàlla kenn santut la ko wala da ngay dem nawetaan Saalum dangay wàññi julli bépp tukki bu tudd caaxaan duñ ci wàññiloo nit ki julli moo tax borom bi ne wa waisa ida darabtum su fekkee ni sadd ngeen tukki fi ard ci suuf si kon fa laysa aleykum déet di war leen junaaxun benn bàkkaar an taqsuru min alsalaati ba ngeen di wàññi julli su fekkee ni da a tukki borom bi nee na du ngeen am bàkkaar su ngeen wàññee julli ne in xiftum su fekkee ni ragal ngeen ay yaftinakum fitnaan leen alladina kafaru gaa yi weddi yàlla mu am nag ñu ca déggee bu fekkee ni amoo benn problème doo wàññi ñu ne déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa ne ki gën a ñàkk teggin mooy ki yàlla may kado mu bañ moo tax borom bi ne innal kaafiriina naka yéeféer yi day ñoom kaanu nekkoon nañ lakum ñeen leen mu biina noon bu bira bira bir kon nag tukki su ngeen di tukki mën ngeen a wàññi su ngeen nekkee ci jihaar mën ngeen a wàññi julli kon du ngeen am bàkkaar su ngeen wàññee léegi nag muy waxal yonent bi ne ko su ngeen génnee xare yow ak julli ci léegi nag mu ne ko wa ida kunta fihim su fekkee nekk nga ci seen biir fa axamta nga liqaamal lahum ñe leen salaata julli nekk nga ci seen biir yéen ngi ci xare nit ñaa ngi rayante fas yaa ngi akkante mbooloo yi bëri fa aqamta salaat nga taxawal julli ñeel leen kon nag dangay séddale ekip bi ñaar mbooloo mi julli mbooloo mee défendre leen ci xeex suñu jullee sëlmal mbooloo mi doon défendre ñëwaat taxaw julli ñee défendre leen moo tax mu ne fal takkum na taxaw taifatun kuréel loolu lañuy tuddee salaatul xawf muy jullik ragal jullik ragal ci xare lay am ne boo formé mbooloo yi ñenn ñi nañu ànd ak yow suñu ànd ak yow ñeneen ñi yore seen arme ngir sàmm ñee su ñeeru koowee nañu taxaw seen kanam suñu sujootee ñu taxaw seen kanam waaye ñiiru koog sujootit nag seen jaas yi bu mu leen sori bul kàbbar ni da ngay julli rek sànni sa jaas yi sa ginnaaw bàyyi jaasi bi kàbbar danga julli sa xel du dal sa noon mën naa këf yi nga far julli nga jeex kon jaasi bii nga gàddu gàddu ko te julli ak moom su nit jàkkaarloog yow bëgg a ñëw daggal julli ga dóor ko rey ko continuer sa julli taxaw nga yore sa jaasi nit nit ñëw jëm ci yow neel boccet jaasi bi fëgg ko ko mu àgg suuf nga tegaat sa kaw continuer sa julli julli ga du yàqu moo tax mu ne wal yaxudu nañ jël aslihatahum seeni gànnaay mooy seeni arm fa ida sajadu su fekkee ni sujuut nañ ne na nekk mbooloo meneen ma mi min waraikum seen ginnaaw su ko defee wal taati dikk julli nga ba pare taifatun uxra beneen mbooloo ba nga xam ni lam yu sallu jullee gu ñu woon ñooñee bu ñëwee fal yu sallu maak ñu julli ànd ak yow waaye wal yaxudu nañ jël xidrahum seen ak wattu waxtu bu nekk jullit day def préparation li war a mat matal ko kon nag nañu jël jàpp seen ak wattu wa aslihatahum ak seen ak arme borom bi ne wadda bëgg na mebet na alladina kafaru yéefar yi law taxfuluun aka neexoon ngeen sàggan an aslihatikum ci seen arme yi wa amtiatikum ak seen bagage yi su ko defee ñoom tamit ca mbooloo fa yamiluuna ñu daldi di jeng jeng ak lor aleykum ci yéen maylatan waahida benn jëngu mbëmbëstal dañuy bëgg ngeen di rukkoo sàggan rek ñu ñëw corondoo leen ngeen dee waaye islaam nee na déedéet yéen ñépp bu ngeen taxawee bëgg a julli su ngeen dee da ngeen a def musiba kon nañu xaaj mbooloo mi ñuy julli ñuy défendre leen nee wala junaaha déet bàkkaar aleykum di war leen in kaana bikum donte nekk na ci yéen azan lor moo xam min matarin taw bu bari la aw kuntum wala ngeen nekk marda aji feebar ne an tadau ngeen teg seen arm ngeen teg seen arme ne waxudu jàpp leen xisrakum seen ak ngànt soo demee ci xare taw ñëw tegal sa arme sa wet fitna ñëw tegal sa arme sa wet ndax inna naka yàlla day aadda waajal na lil kaafiriina ñeel yéefér yi azaaban mbugal muhiinan bu doyadi kon xeex norm yi mu am du tax julli wàcc la rayante du tax julli wàcc la kon kay boo tukkee julli du la wàcc boo sonnee julli du la wàcc boo feebaree julli du la wàcc boo jaaxlee julli du la wàcc kon loo mënti def rekk del julli kon borom bi ne su fekkee nag julli ngeen ba pare fekk yéen a ngi ci xare bi moom lay wax ni fa ida qadaytum su fekkee ni pare ngeen asalaata julli gi matal ngeen julli gi te xeex la ngeen yore seen arme bu leen fa toog nag ni dangeen ngeen di tasab ndax kat guerre moom ku ciy julli farata bi rek ngay def li ci des li dul farata def ko ci yeneen côté yi sëlmal ngeen bu kenn toog naan faat faate ak nangam déedéet asalaamu aleykum bi imaam di wax day ànd ak jóg maamum yi bu ñu ne asalaamu jóg ku nekk yor sa jaasi ñu ne waaw yàlla nan lañuy def ci war a tasab war a ñaan mu ne kon fazkurullaha tudd leen yàlla tasab leen màggal leen yàlla qiyaaman moo xam da ngeen a taxaw di dox wala di xeex wa quudan wala dangeen ngeen a toog mën ngeen a tudd yàlla wa ala junubikum su ngeen tëddee it mën ngeen tudd yàlla kon dara nekkul ci ngay tudd yàlla nga taxaw walla nga toog wala ngay dox wala nga tëdd léegi nag su ngeen nekkee ci loolu ba fa ma manantum su ngeen demee ba wóolu ba am sécurité léegi nag xeex bi jeex na wala noon yi daw nañ su boobaa la doon cosaan su ngeen jullee ku mu neex mën naa toog mu def tasab kon fa moo taxawal leen assalaata julli aa ah, taxawal leen julliwaay bi ngeen di xare yéen a ngi julli kon borom bi ne inna salaata kaay ma waxal la yow doomu aadama xamal ne julli kaanat aji nekk la kitaaban di téere mawquutan bu ñu waxtul alal muminina ci jullit ñi julli daal du la wàcc am nay waxtu waxtu yooyee ca lañ koy julli léegi nag borom bi ne wala tahinu bu leen doyadi fi butigail qawm ci sàkku nit ñi léegi nag la ngeen di ut di ko def moom la yéeféer bii ut di ko def soo daggee boppam mu metti bu daggee sa bos mu metti waaye yàlla du def nga dagg baaraamu jàmbur mu metti ñu dagg sa baaraam mu sedd loolu amul fenn moo tax mu ne in takunu taalamun su fekkee ne dangeen a am benn mettital na leen wër ni fa innahum naka ñoom yéeféer yi it ya'lamuuna danañu amuk mettital kama taalamuuna comme na ngeen amee metti la mu mettee ci yéen la mettee ca ñoom te yéen yéen a leen tane metti na ga waaye nag wa tarjuuna da ngeen yaakaar minallaahi ci yàlla maa loo xam ne ñoom ñii laa juuna yaakaaruñ ko yéen am ngeen ci yàlla yaakaar bu ñee amul lan mooy loolu mooy yéen yaakaar ngeen àjjana te yàlla dana leen fay àjjana kon loolu na ngeen ko taxawee eh génnal foofu yow kon nag métit ñépp ñoo ci yem ñépp a yem ci métit loxo buy metti moom loxo buy metti la rek bopp buy metti bopp buy metti la bëñ bi metti bëñ buy metti waaye bul ne mukk-mukk ba ñu yéefar day metti waaye jullit bëñam du metti bëtu bëtam du metti mettit yi benn la ñoo yem ku ne wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun yéen day yaakaar ngeen fayuk yàlla boo xam ne ñoom yéefar yi yaakaaruñ ko nee wa mustajan yàlla aliman di aji xam xakiman di aji xarala yàlla ku xam la yàlla ku xarala la li muy def xam na ko li muy santaane xam na ko li mu bëgg ñu defal ko ko xam na ko kon jullit bi na nga bàyyi xel ne lépp looy def teg ko ci dëgg boo ko tegee ci laytaayal dëgg noflaay mën naa am léegi nag mu delsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko innaa ñun yàlla anzalnaa wàccee nañ ilayka ci yow muhammad alkitaaba téere bii bil xaq ci dëgg alquran dëgg moo ko wàcce dëgg ko tax a jóg ci dëgg la wàcce kon téere bi wàcc na waaye li tax taxkuma ngir nga àttee bayna naasi diggante nit ñi bi ma araka ca la la yàlla wan yow daal booy àttee àtteel la yàlla wax bul àttee la tubaab ba wax walla noonu yàlla ba walla noonu diine ba problème bu ñu la indil teg ko ci alquran teg ko ci sunna kon inna anzalna ilayka alkitaaba bilxaq li taxkuma bayna annaas bi ma araka allah ngir nga àtte diggante nit ñi la yàlla wan waay waay yow nag boo àttee ba pare wala takun bul nekk na xasiiman di xuloo xuloowaale lil xaa'iniina ñeel workat yi bul sonal sa bopp di xuloo am na ñoo xam ni workat lañ dàggasantekat lañ xulookat lañ yow amoo jot di def ak ñoom lenn wax ji ñëw na àtte nga jógal dem sa yoon problème bi ñëw na àtte nga jógal dem sa yoon waaye def sa jugement ba pare bëgg a taxaw nag commencé naan lii yéeg li ak lii borom bi ne ko bu mu la ci fekk yow daal wastaghfirillah sàkkul yàlla jéggal la yàlla nañu yàlla jéggal yàlla bu ne yonent bi na jéggalu yàlla kon ñun kenn waxuñu moo tax mu ne wastaghfirillah na nga jéggalu yàlla ndax kat inna allaha naka yàlla kaana mustadañ gafuuran di jéggalaakoon raximan di aji yërëm yàlla mustadañ di nekk jéggalaakoon yërëmaakoon léegi nag bu fi nekk di dàggasanteek santeeg yéefar yi mbaa ngay dàggasanteek ñi amul teggin xamuñu nee wala tujaadil bul dàgg santeeg mukk an illadina ca ña nga xamante ni yaxtaanuuna anfusahum dañuy war seen bopp kuy war boppam jarte xuloo léeg-léeg nit day na ci fo ak caaxaan ba bëgg a weranteeg yow yow xam nga ni moos yàlla subhaanahu wa li mu araamal ci bépp côté la araam lii yàlla du ko tere fii ba pare nangu ko fee borom bi dafa tere ni ko borom xam-xam yi waxee lu jëm ci tëgg akam fecc ak fo mu des nag bu dee ciit may nañ ñu tëgg duffu te jigéen ñi ñoo koy def bu dee feetu tabaski may nañ ko waaye bu dul boobu amut léegi nag nga nekk ci loolu yow musicien bi xam nga ni moos misik dafa xaram loolu de ko werante kenn kuy ne ci musique di yëngatu rek xam nga ñi du dagan moo xam ca leader vocal ba ak kenn ku yore instrument xam nga ni lii moom islaam nanguwu ko moo taxit ka koy def su bëggoon weranteek yow ne la dara nekku ci wala sama sëriñ nee na dagan na nee ko jarul soli wax ko rek la ma waxoon booy ba seeju ba ñuy wax ci wàllu misik ab melomaan la moom mu ne day defendre musique daggan na baax na ndax talaal badru aleyna waaw loolu way nañ ko yonent bi nangam nangam wax a wax a wax ba pare ñuy wax ba tàkkusaan si coow li nar a bari ma ne ko léegi xam naa ni li ma lay wax ay texte la doo ko dégg doo ko nangoo jël mu ne ah, ma ne ko léegi mbooloo mi maa ngi ñaan na wax amin moom it na wax amin su paree mu ñaan balaa maa ñaan li may wax mooy yow diw mu ne naam ne ko maa ngi ñaan yàlla soo deewee ñu jël sa kasetu jingal walla sa kasetu misik taal ba mu foor boole kook sa koor yóbbu la ca armeel ya suul la mu ne ah non non non oustaz tout sauf ça non non non loolu moom déedéet en tout cas yow nee nga musique dagan na kay wax dëgg yàlla waloo waloo ragal nga dee ñu lay yóbbu sa kaset nit ñi xàqataay reetaan yenn paayi ne ko ah li la wax nii day doo ko dindi mu ne ama ah, ne ko xam nga lu lu neex mu ne ama ah, ne ko nangul ne rek caay-caay moo la jàpp ak maa tey waaye xam nga ni daganut amul kenn ku ko mën a daganal léegi nag ngay tëgg nekk ci sa musique di fo di caaxaan di caaxaanloo nit ñi weeru koor ñëw mag ña doon fo ñëpp amuñu fu ñu foye ña doon fecc amuñu fu ñu feccee ña doon tëgg amuñu fu ñu tëggee xam nga weeru koor sabar ci yombut weeru koor xumbal ci yombut weeru koor fecc ci yombut bu fecc yomboon it mënoo ko ndax ku xiif du dem ba tàkkusaan di fecc wala boo feccee it danga gaaw a baaral ndax xam nga ni xiifay tax léegi nag loolu jeex weeru koor ñëw nga ne non nañ leen daganal fecc mi waaye ñu jaaree ko ci diine ko defee nag ña doon fecc démb jógaat ki nekk ne day tagg yonent bi ñu ne tagg bi lañ koy tuddee ay ca ku nekk nag day ñëw way ñu tëggal la xumb-xumb ñu ne yaa rasulallah yonent bay waaja nangam nangam fekk ña màndi woon ci tëgg fecc démb amuñu fu ñu jaayoo ñoo bëgg a ñëw jaayu fii waaye way yonent bi sallallahu alayhi wa mënta ànd ak tëgg ak kii mu dagal te jigéen it du moom moo ko war a def kon loolu jullit ñi xam nañ nañu bu wér ne yàlla subhaanahu wa taala lim bëgg xam nañ ko moom kay nangoo defa fi nekk ak bañ rek waaye yow xam nga ku ne ci lu baax xam nga ku ne lu bon xam nga ndax doomu aadama ku xam boppam la kon nag yëgal ni boo nekkee ci lu baax jarul sori boo nekkee ci lu bon jarul sori moo tax mu ne wala tujaadil bul werante mukk di dàgg santeeg an yi ñi nga xam ni na yaxtaanuuna anfusahum dañuy war seen bopp kiy war boppam mooy kiy liggéey liggéey bu daganut te xam na ni daganut xam na ni riba daganut xam na ni liggéey bi muy liggéey dëgg-dëgg liggéeyu videur xam na ni daganut waaye lu mu lay wax awma ci lu ma jàpp mais man maay maa nekk ci buntu dancine bi maay garder affaire yi pour benn bandi du ñëw yàq ko yow sa conscience tranquille nga ni liggéey bi liggéey la xam nga ni du liggéey bu dagan wala nga dem ci baar ba nekk gardien baar bi di ci liggéey xam nga ne liggéey bii daganul moo tax bépp liggéey bu dagan kenn ku ne xam ne ko xanaa kay bu gaaw ak bu gaawut bu bëri xaalis ak bu bëriwut xaalis su ko defee nag werante ñëw bu ñu nee xaraam na gars yi dañoo soxor ñoom dañoo foog ni ñëw moom diine ji déedéet moo tax wala tujaadil bul jàgg santeeg ani lazina ñi nga xam ne yaxtaanu yaxtaanuuna danañu wor anfusahum seen bopp dañuy wor seen bopp ndax gëmuñu lañuy def ne inna allah naka yàlla day laa yuhibbu du bëgg man kaana képp koo xam ne nekk na xawwaanan waraakoon asiman bàkkaraakoon koo xamante ni day def bu war boppam ba pare di bàkkaar léegi nag mu ñëw ci yonante bi ne ko naafiq yaa ngoog lépp lu ñuy def daal ñoom tax yastaxfuuna dinañu nëbbu minan naasi ci nit ñi moom kay feeg nit ñaa ngi toog duñu bàkkaar waaye bu ñu wéetee bàkkaar kon tax yastaxfuuna ñu ngay nëbbatu minan naasi ci nit ñi te wala yastaxfuuna duñu nëbbatu minallaahi ci yàlla te wa huwa moom yàlla maahum mi ngi ànd ak ñoom ni nga ragalee bàkkaar bi nit ñi gis ko ni nga bañee njaaloo bi nit ñi gis ko ni nga bañee mànd bi nit ñi gis ko noonu la ko yàlla gisee lan moo tax bëtu nit ñi rëy sa kanam ba nga amal leen kersa te yàlla mi la bind amaloo ko kersa mooy wala yastaxfuuna du duñu nëbbu minallaay ci yàlla xamul tax munuñ ko ndax wa moom yàlla maahum mi nga ànd ak ñoom id yu na ba ñuy fanaan di def maa loo xam ni laa yarda yàlla gërëmu ko minal xawli ci wax dañoo fanaan di wax lu bon mbaa ñu koy def xam nañ ne lii yàlla bëggu ko wa kaana allaahu musta dañ moom yàlla day muxiitan di aji léem bi maa yaamaluuna ca la danañu jëf ko loolee ñuy def yàlla xam na ko léem na ko dara réeru ko léegi nag mu ne haa yëgal ni antum yéen ñii haulaai ñii yëgal ni yéen ñii yéefér yi naafiq yi jaadaltum dàgg anhum yéefar ya fi lxayaati dunya ci àdduna mi léegi nag fa man yujaadilu llah képp koo xam ni day dàgg yàlla anhum ci ñoom yowmal qiyaamati bis pénc ku mën a dàgg fii ndax mën ngaa dàgg santeeg yàlla bis ci déedéet am may yakunu wala sax ka nga xam ne dana nekk alayhim waral leen wakiilan di wéeroo seen mbir di ko gàddu léegi nag mu ñëw ci wuute ak yonent bi yàlla nañ ci yàlla sol ne wa may yushaaqiq képp koo xam ni wuute na foofu la naam kay wa may yaamal soo an eh, man jàng na wa may yushaaqiq rasul ah waaw dama ko jàng bokk ci kay <laughs> mu ngoog wa man yaamal képp koo xam ni jëfee na suu an bàkkaar képp ku jëfee ñaawteef képp ko jëfe bàkkaar kon dama jàng wa man yushaaqiqi rasula ci biir jàng mi waaw ah, bokk ci wax dëgg yàlla bokk ci est-ce man damay jaaxle walla lu tax ma jàng ko kay mooy sama problème ah jeexal na ma de <laughs> ne wa may yaamal suu an képp koo xam ni jëfe na ñaawteef aw yazlim nafsa walla mu tooñ boppam ku def bàkkaar walla mu tooñ boppam nit dina tooñ boppam nit dana def bàkkaar tooñ boppam tooñ boppam mooy def bokkaale boo bokkaalee tooñ nga sa bopp soo njaaloo tooñ nga sa bopp soo waxee lu bon tooñ nga sa bopp ne aw yazlim walla mu tooñ nafsahu boppam tooñ boobee dana nekk bàkkaar waaye gannaaw ga xelam yeddu ko mu xam ni lii mu def bàkkaar la summa gannaaw ga yastaxfirillaha mu sàkku yàlla jéggal ko borom bi nee na kookee def loolee yajid dana fekk allaha yàlla xafuuran di jéggalaakoon raxiiman di aji yërëme léeg-léeg nit def bàkkaar tiit waaye lay dindi tiitaange boobu ak bàkkaar boobee mooy tuub te buntu yàlla lu ubbeeku la kon nit ki na xam ne <coughs> kenn moomul borom bi nit daal bu defee bàkkaar tuub waay waay maandu ci nag ndax doo jéggale du yow lañu ñu war a jéggalu du yaay aji yore bàkkaar nit ki yàlla la séqal yàlla la tooñ yàlla la war a jéggalu su jéggaloo yàlla ñaanal ko yàlla yàlla nangul ko bu dee nag bàkkaar bii mu def dafa laal nit kooku day baalu nit ki ba pare doog a jéggalu yàlla danga sàcc alalu jàmbur boo baalu woon yàlla it yàlla du la ko baal ndax kat xaru jàmbur bee nga tekki mu defoon ci yaakaaram baa nga rey ko mu def ci xelam kooku nit nga tooñ mënoo dem rekk julli ñaari ràkka ne yàlla jéggal ma yàlla jéggal la noonu munta yombe noonu comme danga sàccoon xaru jàmbur tooñoon ah il faut nga dem ci borom su fekkee ni xar ma danga koo jaayoon wala jotoo koo jaay ngay dil ko xar mi ne ko jéggal ma su fekkee jaayoon nga ko njëg laa ngi fii nga ñëw ci moom ne ko jéggal ma te pare nag lu mu la wax nga assumé ndax yaa tooñ ne bu dee danga laal yi fi nit kon nit ki ngay jéggalu mu def nag laaliin boo xam ni mën naa indi faat laal boo xam ni mën naa indi faat ah kooku nag daa am nu ñu koy defee nit ki seytaane mën ko mu njaaloog jabaru jàmbur dëgg yàlla mënoo ñëw ci moom ne ko baal ma dama njaaloog sa jabar loolu boo ko waxee moom boo moytul mën naa am balaa ngay pare mu fëkk jaasi teg ko sa kaw kon dangaa tooñ reylu sa bopp kon jéggalul nit ki nga tooñ mooy at attaxallulu anil mazalim jëlal li nga ko yóbba yoreel nga delloo ko ko su dee bor la su dee loo ko waxoon lu bon la su dee danga koo jëwoon it nga jéggalu yàlla te jéggalu ko ne ko baal ma àq baal ma àq bi nga ko wax mu ne baal naa la yu ndaw yu bari xaj na ci mais dafa am yu mag yoo xam ni mën nga koo leeral borom man kat maa defoon nangam ma bëgg nga jéggal ma soo ko defee mu baal la soo paree nga tuub ca yàlla te mooy julli ay ràkka tuub dellu ci borom bi nee soo ko defee danga fekk yàlla jéggalaakoon la waaw su fekkee yàlla jéggalaakoon la ak li ñu koy tooñ yépp dëgg-dëgg bu la nit tooñee nag bu ñëwee ci yow ba nag nangoo wax la tooñ na dëgg-dëgg war ngaa am ngoru jéggal ko nag mën ngaa am ngoru jéggal ko xam nga lu tax mooy ku daan day wàcc waaye boo daanee ne dangay toog ci kawam ëllëg bu ñu la daanee dañuy toog sa kaw tooñ nañ la xam nga ni kii li mu la tooñee mënatu koo delloo nee na la jéggal ma baal ko te yàlla tax soo ko mënta baal nga ne ko fay ma te fay ma bi du ànd ak fitnaal ko waaye li gën mooy nga jéggale nga jéggale moo tax mu ne summa yastaxfirillaha ki tooñ yàlla jéggalu ko ne yajidillaaha dana fekk yàlla gafuuran rahima mu ne waman yaksib képp koo xam ni fàggu na isman bàkkaar na ko bir ni fa innama yaksibuhu daf ko fàggul ala fi boppam bàkkaar moom boo ci def rekk sa bopp nga tooñ bàkkaar boo munti def sa bopp nga tooñ nee wa kaana allahu mustadan yàlla aliman di aji xam xakiiman di aji xarale ne wa man yaksib ku fàggu xatiatan ñaawteef ñaawtéef mooy loo def te ku ko gis yem ci xam ne lii lu ñaaw la tourné jam nit walla nga fël nekk fa leen naan sàngara wala ñu bett la nga ñaaloo mooy wa man yaksib képp ku fàggu xatiatan ñaawteef ginnaaw ga nag aw isman wala mu def bàkkaar summa yar mi mu sànni bihi ca bàkkaar ba bari an ci aji deñ def bàkkaar bi ba pare nag di lay ni defuma ko kookee faqad ixtamala ci dëgg-dëgg yenu na buxtaana nar wa isman ak bàkkaar aziman bu màgg nit ñi dañ laa bett ci ngay njaaloo nga commencé du dëgg du man defuma ko nangam nangam yow noo seulement def nga bàkkaar ba pare nit ñi gis nañ la jarul yenn yi yow xam nga ni def nga bàkkaar tuubal dellu ci yàlla yàlla nañu yàlla musal ci bàkkaar yàlla nee na lii lépp nit ñi def ko ma jéggal leen kon walaw laa fadlullah ay yow yonent bi bu du woon a yàlla aleyka ci yow su dul woon ak ngëneel gi la yàlla defal wa rahmatuhu ak yërmandeem kon nee la hammat dana mébét kan mooy mébét taaifatun kuré minhum ci ñoom ay yudilluuk ngir ñu réeral la waxtu bu nekk dañuy fexe di la réeral di bëgg a réeral jullit ñi kon danañu fexe ngir réeral la waaye wa ma yudilluun borom bi nee na du ñu réeral mukk-mukk illaa anfusahum mbate seen bopp te wa ma yadurru nag borom bi ne du ñu la lor min shay'in ci dara dara dara munuñ la caa lor lu am ñoom ñoo ko def yàlla ne wa anzala allah borom bi ne wàcce na aleyka ci yow alkitaaba téere bi wal xikmata ak sunna te mooy la sagesse borom bi ne wa allamaka xamal na la maa loo xam ne lam takun taalam xamoo ko woon moo tax nit loo xam dellool xam nga ca yàlla ndax yàlla yombal nga xam la mu yombal nga xam ko sa fukki moroom dem nañu xamuñ ko kon xam-xam boobu dañu koy delloo ci yàlla wa allamaka maa lam takun taalam xamal na la loo xamuloon ne wa kaana mësta deñ fadlullahi ngeneelul yàlla aziman di lu màgg aleyka ci yow yal na yàlla defal ñu dégg ak topp def ko ci yéen incha allah